réew liggéey moo ko yor te métier bëri na fi benn métier la yàlla tere muy tàllal sa loxo ñaan à boobu noonu lépp métier la jaay ndox jaay ay xeer lépp métier la na am daal loo suturloo sa poche rek ak toog si koñ yi bopp koñ yi amul sens ataaya bi amul sens ndax góor yàlla moom am na lu la war da nga war ay defi ku am temps rek war nga am ci lo jàpp parce que chaque jour di ñaan say waju c'est difficile te xam nañ condition de vie Sénégal nous mu c'est assez difficile donc si tu as le temps tu tu trouves quelque chose à faire rek je pense que da nga see dem bul xaar dara wa munoo war nit dal waru tok chaque jour di xaar. ma ngi préparer pour euh, liggéeyal sans bop waaw parce que ku nekk aussi day ñaan yalla évoluer waaw. Sénégal mom liggéey mom amu fi so gis mag ñu xalé yu bëri amuñu liggéey instant bi Ligue moo au Sénégal parce que bo ci tax liggéey fi am ak ma euh, gis ñoo dañuy jaay café ak la fa gis ak business seen rek parce que je yombul mom ñu gëm seen bop rek bam lañu bëgg ci kaw suuf inshallah rabbi gëm sa bop gëm parce que man mo wax moy ki bu muy ñëw je ne ni euh, peut-être dinañu ñëw ba ensemble marque bi kenn fi Sénégal comprendre nga donc du coup à travers nous nous liggéeyee la gis comme yow tu es dans l'entrepreneuriat, comme man la nga marque pourtant nous ñi ñuy ay sociétés qui proposer ko mais dafa gis ne en fait mu encore euh, orientation bu mu bëgg jox produit bi on a en fait les mêmes visions donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après foire bi je suis man may nek dikay koy defal prospection terme faire connaître le produit donc c'est la continuité pour nous deux voilà, c'est la pérennisation parce qu'aujourd'hui, elle est rassurée, elle est sûre que le produit a un potentiel malgré la cherté. Voilà, voilà, nous sommes sen bop, nous sommes sen bop. Nous sommes sen bop. C'est ce que tu peux partir à partir de zéro. Hein? Tu peux partir à partir de zéro. Nous partir une hôtellerie. Tu peux des de en ligne, publier, commander mais ñun en fait ñun ñëpp ku nekk da nga bëgg nekk ci bureau xam nga moo jege nga yor sa carte maa ngi liggéey tey société mais à partir de chez toi tu peux travailler man sama kër laay liggéey. nit ki bu leeree na ne lii nga mën dama nga def loolu parce que si tu attends les entreprises tu vas jamais avancer parce que ñoom je me dis que ñoom seeni famille la ñuy gën a lijjanti ak seeni côté que nit yow nit yi te c'est rare nga gis benn inconnu ñëw nekk si entreprise tant que amoo loo bokk ak nit ki doo nekk alors lenn rek moo ñu siy mën a génnee tu am nga loo mën a def leer la lii nii soo ko genre tu vas réussir va va au bout de tes rêves n'attends pas que les gens nit yi ñëw la wala et tout parce que fii loo gis rek tant que yaa ngi débrouillé yow tu vas avancer. war nga jàppale say parents war nga am jabar war nga am doom war nga am cœur, bàyyi fi cœur pour sa njaboot ndax waroo dem bàyyi sa njaboot dëkk sa kër famille xam nga kër famille du cœur. loolu moom maa ngi koy digal jeunes yi ku si nekk si liggéey boo am na nga si ba ñu dugg si ay affaire yu ñàkk fayda comme ay jaayi drogue affaire yooyu noonu loolu yoru réew. nit ki loo jàpp métier la jaay say ndox lu lu la gën a ndaw gën la jëmal ci kanam parce que nit ci lu ndaw ngay commencé pour mën a jëm ca kanam xam nga saa jëm ci kanam il jàpp ci lu ndaw di def ndànk ndànk ndànk ba jëm ci kaw ndax ñëpp loolu la ñuy ñaan tey fii ku si nekk bu la nee te am tekki naan te ji avant am loo xaw na sonn du dëgg ma ñu def ndànk par ndànk yàlla baax na daal. ba baax na nañ toog góor a gëm suñu bopp toog di xaar gëm suñu bopp parce que nikki loo xaar du la fa fekk du dëgg fañ toog xaar gëm suñu bopp daal jëm ci kanam rek. donc jeunes yi da wax ñoom ñu toog di waaw jeunes nañ toog xaar gëm seen bopp xam ñoom ñooy kan xam leen yëkkati.